waaye jërëjëf sëriñ Xaadim jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñooy teewlu seen euh, Touba Vision muy liggéey bu am solo boo xam ne ñoo ngi fii ci Ziguinchor fas yéene ko amal muy suba la bisu xasida bi nga xamante ne waa tubaa Touba Ziguinchor ñu ngi koy taxaw waaye ana fu ñu koy taxawoo mooy fii ci kër sëñ Touba gi waaye comme ni nga ko waxee muy lu am solo muy tey jii xam ngeen ni euh, ni ko ni mu li euh, day mel ni aaya bi mu ubbee rek day mel ni daanaka mën nañ cee def taaleex bi ndax defe naa ci wolof la ko wax waaye suñu moo wax amrilaahi wa charul bay' waaye lam ca teg mooy saari xayrul lakum in kuntum ta'lamuuna nga xam ne loola ginnaa bu mu ko indee waaye indiwaat ak bennoo te xam ngeen ni bennoo saa su ne damay wax ni Euh, benno boo ko bëggee dégg dëgg dëgg dëgg maanaam mooy benn mooy mooy bisi xasida yi maanaam bisi xasida yi nga xam ne moom lañ fas yéenee amal Touba Ziguinchor dafa bokk ci li nga xam ne dafay firi wala dafay indi bennoo gi nga xam ne jullit ñi moom la ñu war a bennoo ndax dama laa wax ne bisu xasida boo ci ñëwee da nga fay fekk waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu waaye bisu xasidaat loolu ginnaaw bu mu amee da nga fay fekk innamal mu'minuuna ixwatun faslihu bayna axawaykum waaye bisu xasida dafa mel ni li ko tax a jóg mooy ànd nag dimbalante ngir suñ borom te loolu suñ borom moo wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa nga xam ne loolu boo ko boolee day mel ni aay suñ borom yooyu yooyu yëpp ak fi mu ak yeneen yu bare bare bare bare yoo xam ne da koy wax ci bennoo day mel ni bisu xasida yi da koo boolee ndax bisu xasida mooy bis boo xam ne day indi at yooyu yëpp ndax dana àndandoo ngir jëmmi suñu borom ndax ñun ñëpp noo bokk pas-pas ñun ñëpp kenn ku ne yëg ni Sëriñ Tuubaa defal na la loo xam ne sa cantuk bopp mënu mënu koo matale ñu dajale suñuy doole dajale suñuy wërsëg waaye dajale suñuy xalaat àndandoo ni kon nun danañ njukkal Serigne Touba ci lim nu defal ci xaside yi fenn fu ñu ko fay wooteel ay bis moo xam ci réew mi la comme ni tey Ziguinchor ñoo ko aaye suba Thiès moo ko aaye Bambey Louga ak mboolem dëkk yu bëree bëri bëri ci adduna bi loola nag xam ngeen xam li nu Serigne Touba defal ñuy dàkk ak bëggam mooy tax ñuy dajaloo nag te dajaloo googee nag ñun danaa mel ne dañ cee am wenn xeer woo xam ne dafa jam lu bëri ndax man naa indi waata suma billahi jami'an wala tafarraqu mooy li xutba bi te ku ne xam na ne jullit ñi dañoo soxla bennoo ndax euh, sëriñ Cheikh Gaynde Fatma bi muy sos daayira dafa wax ne al ittihaadu quwwatun mooy bennoo mooy doola mooy doole léegi nag doole jooju nag ngir ñu mën ko am mooy dañoo gis ne li ci gën a gaaw mooy dajale murid yëpp ci benn jumtuwaay Serigne Touba bi nga xam ne moom la leen liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wasallam muy xasida yi ndax dafa wax ne xasida yi kat mboolem lu baax ak fu mu mën a baaxee ci adduna jël naa ko dëxañ ko ci lijma jami ama tafarraqa la daa xatti min al xayr wa safiqa la daa kon daal defe naa tey discours am bi buñ ko doon dégg mooy benno mooy jul ñëpp bokk fu ñu jëm te loolu nag noonu ginnaaw buñ ko defee tudde ko bisu xasida dañ ci amaat lu wér wér leneen liñ ci amaat mooy xam nga ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxan ni inda dhikri salihina tansilu rahma fu ne fàttali koo gaa yu baax yi yërmande suñu borom dafay wàcc te xam ngeen ak baax mi ngi yem sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daa gën xasidaam yet suñ borom da koo ne ko fépp fu ñu fi daje ñooña danaa taw ci seen kaw waaye mu xew ba kera ñu ñu fay jógee moo tax kon dañoo dajale yu baree baree baree baree bari ci bis yi nga xam ne moom la ñuy defal sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Mouhamed fekke ko ngeen am ngeen am tawfeex rajab rajab mm-hmm. weeru rajab wi ngeen am mu ñaari fan rajab tey sëñ Fat kon bennoo ga mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. te sëñ sëñ Fallu moom mooy yonent bi mooy sëñ Tuubaa mu ne mu ne rajab mu ne waa yonent bi ne lay mën a rek jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni ñooy bàyyi xel Touba Vision gis ngeen noonu ko Kosso tojal nañu ko xudd bu am solo boobu fii Imam fallu Diop euh, jàngat mu doon benn goo xamante ni maanaam euh, war na ci bépp jullit boo xamante ni yaa ngi diwaanu Sénégal jëlale nañ Casamance day mel ni xel yi dal na bu baax a baax ci diwaanu Casamance ngir xasida yi nga xamante ni dongo yi ñu ngi ko fi nap na bi day waral ne li mu li mu li mu tëjji bari na kon euh, xam naa ne foofu la ñuy yem ak yéen rek dikk fas yéene wan leen lépp loo xamante ni wàccaayu bisu xasida bi la bi nga xamante ni moom moo fi yam ëllëg kon nees tuuti ñu dikkaat ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Yàlla